mi ngi sant ñom nak tay gërëm ñop képp ko xamna tew na fi ak ku fi tewul sëriñ bi mu ngi lay ñaanal tawfiq ak faju aajo ak wér gi yaram yalla nañu ko sëriñ bi boole defal ñun ñëpp barki borom tuba te am nañ yaqeen bu baax na fi faju aajo la ndax borom kër bi di Cheikh Khadim Mbacké radiyallahu taala anhu don jambar l'islam don lislaam ko tu yalla kon jëmu ji tay bu wote lu melni ñu wuy si ko ak cant la te yalla rek tax ndax lolu ci la nekk baynal fardi wa sunna ni rek ci loolu rek la Cheikh Saliou Mbacke mi nekk kon ñun duñ def lenn lu dul ñaanal ko yàlla fan wu gudd ak wér ak tawféex ak saadatu daari nii ak fépp foo xam ne bëgg na fa yegg légal sëriñ Tuubaa bi suñu borom kattanal ko wërsëgal ko te dooleel ko bi jaay seexu naa Seex Xaadim radiyallaahu taala anhu baaxu maamam sëriñ Mor Jaara sëriñ bi lii rek lañ doon lii xam naa bu ñu demee ba ci kanam dañ gën a leeral incha allahu taala jërë ngeen jëf yàlla na ñëpp am jàmm barkeb Seex Xaadim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

saxaar su jubee gaar day korne te bàkk boobu sa baay bu baax ba di allaaji xaadim yàlla suñu sunu borom dooli leeram allaaji xaadim ku ne xamoon na ko di sëtu Cheikh Ahmad Bamba doonoon sëtam bu njëkk si sët yi génn Europe ak fu ne sa baay bu baax baa fa génnoon di tasaare œuvre Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul alaaji Xaadim yàlla na sunu borom doole leeram fii turu yàlla rek mooy jub si kër gi ajjuma bu jot mu wàcc lu kaamil ay at ajjuma bu jot mu jàng lu kaamil xasaayit alquran kon Mbàkke loo doon nu day dëgër sëriñ Saliou yàlla yàlla guddal sa fan ñu ngi lay ziar yaa ngi toogam Cheikh sàmba Mbàkke yeey ñaar alaaji xaadim dafa boole woon seen kayitu juddu ba ñuy génn kayit yi taqale ko boole ko agrafé ko moo waral seen ànd bi demee nii ak seen rakk ju baax di di Mouhamed Mbàkke ñu ngi la jox sa wàccuwaay di ziar bu baax sëriñ Moussa Mbàkke ñu ngi lay jox sa wàccuwaay ba lu sunu borom jox di ziar nag seexu alaaji xaadim yi di Issa Mbàkke ak Moussa Mbàkke Mbàkke balay sa yàlla na yàlla guddal seen fan yal na yàlla wéral leen yow da ngaa doon si baay namp si ndey lu am solo muy sa kër maam ndar ba Cheikh Ibra ñëwee sa maam la doon àndal di waajuru Faatu Mbay Baay Faal ba ndar kër ga lu ñu leen tuddee woon kër dof yi ndax lu nu takkoo woon ak Cheikh Ibra cey Baabil Muridiina Faal ma daawal yaasin mu ci bu lépp Cheikh Ibra sa kër maam li fa moqalee alxuraan kenn xamul nu mu toll ku dëkk Touba Caaroy sa doom fa lay jànge alxuraan muy góor di jigéen li fa wàcce alxuraan kenn xamul nu mu toll kon Mbàkke yow danga koo doonu si ndey doonu ko si bàyyi sa waajur bu baax la wasóor yàlla yàlla guddal fanam te wéral ko man sa géwalu juddu di sa géwalu jikko ju baax waaye nii da baax na lool ni moom baax na lool awaama Mariam jërëjëf Fall jërëjëf Fall nii dañ leen a war a toppandoo de kuy wax ci sëriñ bi nañ leen toppandoo waay noonu da ci baax ndax kii maay léppam muy sama lépp sëriñ Saaru yàlla yàlla guddal sa fan ko gis waa nooru Kéemaan di gis jeunesse bi xool leen jeunesse bi ñii ñëpp yaa leen teg si yoon léegi la ma kenn woo si ruq léegi sama benn jarbaat naan ma sëriñ Saaliw moo tax ñu baax mel nii kon heure bi leneen la ñuy doon ba nga waree jàng mbàkk da ngaa jàng mokkal alxuraan Cheikh Moustapha di taaw Alaaji Xaadim ma ngi ne bëgg la lool Cheikh Moustapha Basiiru bëgg la lool teg la place ku bokk lu mbàkke rek respecté na la ndax fa nga tegu la yaa ngi si yoon sa maam su ñëwoon doo soppi doxin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 ak kuréelkat yi sëriñ bi moo joxe ndigal rek am mbokk yu baax yu fi teew di sunu gan yu tedd yi yéen xam seen bëgg yàlla na ko yàlla defal si barki Seydina Muhammad ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay bu leen suñu borom jox sëriñ Saliou nee mi ngi leen di nuyu di leen tatagal di leen sargal di ñaan maamam si sëriñ Touba. yéen a xam seen bëgg yal na leen ko sunu borom defal si barke Cheikh Ahmad Bamba xaadima rasul waaye yéen doo leen bàyyi li ngeen def. di délégation bu foor Serigne Saliou nag tey waa Ndar ñëpp teew nan gis naa fi waa Ndar ay yaayam ak maam Marème Fall ndeyam yi nga xamante ni da koo bëgg lool sës si moom kon yal yàlla yàggal seen taxawaay. li nu war wax na dafa am yu de yu nuy rek ministre ministre si président Je suis président fi rek kon le fi lay jox sa Bien bi la sunu borom jox di ministre à la présidence Sador Mbaye ñu ngi lay jox sa wàcc bu leen suñu borom jox moo toog nii ñu ngi lay bëggee di la jox sa wàccuwaay cofoo bis bi xeeboo bis bi ku xool forte délégation bi nga àndal yaa xam sa bëgg sëriñ bi nee na yàlla na la ko suñu boroom defal lii ngay dégmal di ko bëgg ñu ngi ñaan si barki seexul Khadim fii kii laal fàllu la de barki sëriñ Touba ndax bàyyam bu baax ba moo ko fi jëmbal alxuraan xasaayit rek fii jëpp mu nekk si lu mu war a nekk kon Sodor Mbaye ñu ngi lay jox sa wàccuwaay bi la sunu borom jox madame Ndeye Binta Gassama noonu la de anam moom ñu ngi jox sa wàccuwaay bu la sunu borom jox sëriñ bi nee na mi ngi leen di jox seen wàccuwaay bu leen sunu boroom jox ñaan seen jéego yi ngeen jéego yàlla nay seen tawféex ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ak honorable député

su sañoon kenn ku nekk dañuy lim sa tur benn par benn waaye sunu borom mi am fay yàlla na leen yàlla fay sëriñ bi nii ngeen def rëy na lool ci moom barki seexul xadim waaye nag mi ngi tibb si maamam ju baax ja di tibb si baayam bu baax di alaaji Khadim seen bëgg yéen ko xam yàlla na leen ko sunu borom defal. ñu leen jox seen wàcc wàccuwaay bu baax a baax a baax di leen tatagal bu baax a baax ministre yàlla na leen yàlla defal jàmm yàlla na yàlla dolli seen xéewal dolli seen i teraanga man réew amul ko mooy sagu caaroy mooy tiitaru yi yitteem yëpp mooy jeunesse bi tegu ci yoon jeunesse bi nangoo liggéey nangoo jaamu yàlla soo duggee àllu gàmb bi ak àll kaw lépp ay toolam la yor di bay di liggéey. ah waa soxna bii si Touré Touré Maning Mori moom moo ànd ak délégation bi dëkk ci koñ bi kon yow it ngi lay jox sa wàcc waaye bu leen fa roy lépp yow a yàlla guddal sa fan. te sunu borom may la wér sëriñ bi nekk ci lu mu war a nekk la mi ngi ci tool yi agriculture lépp li nga xam ne muy jëmale réew kanam ministre sëriñ bi mi ngi ci barki Cheikhul Khadim la bàyyam ba nekkoon rek ci la nekk muy lislaam ak liggéey ak jaamu yàlla ak ay teg ci ay taalibeem ci yoon taalibeem yi ku la gis xam ne taxawaaluwunu ñi ay jàngkat lan ñi ay ouvrier lan ñëpp moom lan tàllal jox ko bopp tàllal ko loxo ñu àndoon ak bàyyi ma it ñëpp it tàllal nañ ko bopp jox ko loxo kon ñu ngi leen di dalal jàmm bëgg jox rek sëriñ bi ngeen dégg kàddoom mu ñaanal leen ñaanu xaas si barki Cheikh Mouhamadul Fadilu lépp li ngeen bëgg rek sunu borom defal leen ko waaw sëriñ bi nee na nag su fekkee am na kuy jël kàddu si yéen. aouzu billahi mina shaytaani rajim بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بأديق بدعوته فإلا يوم الدين آمين ربي اشرح لي صدره ويسر لي أمره واخلل عقدة من لساني يفقه قولي asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sëriñ bi Mbàkke ñu ngi lay jox sa wàccuwaay ci sa barke maam ju tedd jooju nga xam ne liggéeyam ci réew mi ak ci askan wi ak ci àdduna bi sax kenn réeréetu ko mbir ndax de lim fi def mi ngi ne fànk ñew fi gis euh, xalé yi muy mbolo mi ndaw sa yaakaar da fay gëna sax uh-huh. ndax kat ndaw moy jamono ndaw moy diiné ndaw moy adina té tamit ma japp né xëy na ñoo jamono yow mi ba taxna suñu yaakaar dal na ci liñ la fi fekk ñu ngi lay ziar man ak euh, délégation bima andal yépp nga xamné ma ngi ci dend ak madame le ministre mi ndey Binta Gassama di suñu yaay di suñu lépp ñu dend ci ak madame la vice-présidente de l'Assemblée nationale bokk ci ñu topp ci président Moustapha Niass euh, ak soxna bisu mi nga xam ne fii ci gox bi mooy suñu bunt su ma tuddee jàngalekat ndax fii mbooloowu ndaw la muy professeur euh, Magaye kase mi toog ànd ak ñun foog naa ne bu ma ko tuddee yóbbaale naa ñëpp géew sëñ bi daal euh, suñuy tànk fii moo doon ziar si la ndax bés bu toll nii wuute ko wóorul bu wuutee bés bu toll nii wuutu wóorul looloo taxoon ñu ñëw tàllal la suñu loxo ndax barigo ci mbartal moom jàpp mu dem jàppul mu dem moo taxoon ñu ne faw ñu egsi fi euh, di jéggalu tamit ci ni ñu dogee protocole bi ndax xasida yi ñu fi yëkkati laal nañu lool zikkër yi dugg na suñu xol ndax loolu rek lañ am ci àdduna mooy njëkk mooy mujj kon nag boo ci nekkee rek jox ko ite ji ci war ñu ngi lay sant di la gërëm ci suñu tur sañ nañ la gërëm tam ci turu président de la république ndax képp ku jóg di jubbanti kenn rek ci askan wi jàpp naa ne président de la république nga ko defal ndax réew mi nga ko defal kon nag ñu ngi leen di gërëm yéen bu baax a baax ci wàll wi ngeen féete di ko bay mu doon wàll wu ama am solo kon nag Mbàkke loolu lañ bëggoon yëkkati ci kaddu di gërëm di sàkku ñaan sama yaay nee nañ ñu sàkku ñaan ndax ñëpp xam nañ li ñu dëgmal muy élection locale yi ñu sàkku seen ñaan surtout ñu am jàmm réew mi am jàmm réew mi am dal parce que loolu ci la lépp xaj bu ci loolu nag wéyee sañ nañoo nag diis la suñu soxla ne la fii ñu toog de gox bi président sant nañ ñu suñu loxo ngeen jàppale ñu ñu jël ko mën koo liggéey képp nag dañ koo jël ngir bëgg ànd ak nit ñi doomi aadama yi liggéey ko moo tax Mbàkke loolu moom faw ñu dëxañ ko ci ñaan mi rek ndax yow xëy na loo dégg moo gën loo déggul moo tax ñu jaare foofu rek te jàpp ne incha allah dana am sameex naa waxtaana asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ah ah ministre li nga wax sëriñ bi dégg na ko sëriñ bi dégg na ko lu mu dégg gën lu mu déggul loolu am na yow daa mel ni dan laa déey barki Cheikhul Khadim kon jéego yi ngeen fi indi bëgg ko yàlla na ko sunu borom jàppandal si barki Cheikhul Khadim yàlla ngeen yeggale ak sago si barki Cheikhul Khadim euh, jërëjëf jëf jërëjëf jërëjëf nag baat bu gàtt la waaye ku ko jëful doo ko dégg kon jeri gen jeuf Serigne Khadim Mbacke allah taala mo dana wax ni nit ñi boy and ak ñom da ngay and ak ñom ci benn juk ci ngay and ak ñom jukki ya sa des nag da koy neub ndax boko leralé do mëna doxal da xam deengel ngeen ma bëgg a waxam den nak serigne bi dadi nit yi yalla yàlla bàyyi fi ñun nag dañ di nitu saayir ñun waaye ci mbaaxam rek ci lañu suñu borom dimbalee ñu taxoo ak moom taxoo googu ñu taxoo moom la yàlla na ci ñëpp bokk barkeb Serigne Touba sëñ bi kër gi da di kër yi faju aajo ku sa ajo dul faju doo fi dugg du ma naan diw moo ma wax wala dama dégg borom kër gi moo ko wax mu dugg sama nopp alaaji xaadim alaaji xaadim Mbàkke ku sa aajo dul faju doo fi dugg mhm. kon moom bu fi bu ñëwee àjjana bàyyi fi leeram muy Cheikh Saliou mhm. mu ñëw taxaw liggéey boobu wuy juróom doon taxaw kon xel dana dal mhm. fii depuis mu dëkk si ba léegi ni àjjuma ci jot mu wàcc fi alxuraan loolu sa baayam la woon ak mu xaddamatul xidma mhm. ak taysir góor yàlla yii kenn ku ci nekk day téye sa kurus di tudd salaatu ala nabi loolu nag ci la nekk loolu la yore itam ndaw ñi man nag dama de koo xam ne kenn ma te jeexal ci àdduna bii ñu nekk déedéet ndax damaa jommi ba pare ku jommi moom dootul jommi dama yaakaar na damaa jommi seexaat yi ba noppi moo tax dara dootul ma jaaxal ku ma ci àndal nag damay maslaa rek ngir jëmi Serigne Touba waaye dara fëttul sama bët ci àdduna loolu moom dama koy leeral ñépp moom da di jàmbaar mhm. wuy juróom seexaat yi wax ma ci moom lu bari man du ma naan yàlla kat mu ngi nuyu Serigne Saliou te gisuma yàlla. dëgg la ngir bëgg lu ko neex. Mhm. déedéet. woy naa lool weesu naa lool mooy li ma njëkk wax dama jombi ba pare dootuma jombi du ma raay dara. Mhm. bu may ànd ak yow damay ànd yow ci dëgg. Mhm. bu ñuy tàggoo dañoo tàggoo ci dëgg. moo tax ñu ne Xaadim Touré dafa metti méttiwu ma yàllaa ma jukkoo noonu may ànd ak Serigne Xaadim ba mu ñibbi àjjana. lépp lu ma mës a sant dama koy appliquer. comme neex nag ñu ànd ci loolu kum naqadi ba tey yaa waaye sëriñ bi rek lay déglu. déglu ma kenn ku dul moom. yàlla na kon moom bu dee jàmbaar sañ nañ koy leeral ci mbooloo ñëpp dégg ko ndax wuy juróom moo ne dama ne Xaadim Touré ma ne Mbàkke mu ne ma diw diw sëriñ Salim ñu dama am ci moom yaakaar wax ci leneen leneen miraaran lu bari waaye Baye Moussa Ka dane am na ci mbir yoo xam ne dañ koy misaal nag. Mhm. waaye am na ci loo xam ne duñ ko laal. Mhm. foofu rek lay mën a yem. Mhm. waaye dafa am lu mu mooy ndaw ñi ku leen xool sëñ bi mënoon nañu nekkaat ci leneen waaye doo leen gis sax ñu téye cigarette wala loolu sax moo njëkk yéeme ñii tey ku la ci téyel xasida alquran nga ne déedéet te fii lañ ko ci loxoom lañ ko lañ ko lañ ko jàngee loolu rek doy na tawfiix moo tax ma ne ku su aaji dul faju doo fi ñëw loolu na seen xel dal ab ànd nag du benn rek koy doxal de ñaar ñoo koy doxal kenn ku nekk dafay am nooy taxawee sa digganteeg sa morom waaye bu ñu yàlla dimbalee bañ dëkk ci gox bi ak moom waaye waaye sëñ bi dañ xool suñu bët bu ñu nelaw bu ñu nelawee rek duñ lu ñu wut duñ ko am waaye bu ñu xoolee suñu bët lu ñu wut yàlla suñu borom mën nañu ko defal bu baax a ngi nii barkeb sëñ Bamba ku jàmbaare a ngi nii ku am jom la nag waaw ku am jom la kon nag nu ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax a baax gis nañ taxawaay bi gis nañ ànd bi ngeen ànd ni mu jekkee suñuy yaay yu tedd yi suñuy mag suñuy grand suñuy tonto ñëpp ñu ngi leen di siyaar di leen ñaanal yàlla li ngeen di wut suñu borom yàlla na leen ko defal amiin te bu leen ko defalee itam yàlla na gën ci yéen amiin bi jaay Seexuna Ahmad Bamba barkeb Seex Xaadim suñu yaakaar amiin soxna biisu moom wax dëgg yàlla dañ koy beral ak nuyoo biisu ndax moom da di ko baax ndaw la waaye ndaw lu am jom la mhm. nit bu amee jom rek neex a àndal mhm. ndax dafa am jom foo ko fekk mu ci waaram kon lolu ñu ko ko koy bax di leen ko seddal mbokam yu bax yi ñu andal ni te dafa na buy démé ni ci loxom la jaar mhm. kon momit dafa aajo ñukkal ak kent mhm. yalla la sun borom dimbalé taxawu la amin ñu koy dagan Cheikh Khadim yalla la ko defal amin bi hurmati rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya barke Cheikh Khadim ya ñu ngi sant ñep tay gërem ñep lépp lu fi nit di ut yal na la ko yàlla defal barkeb Serigne Touba yal ngeen am wér yal ngeen am fan wu gudd barkeb Cheikhul Khadim baaxu Cheikh Modou Diarra borom Sam wasalaamu ala man tabaxawu da jërë ngeen jëf ñëw ko yàlla defal ak ñii nga indi muy délégation bi sëriñ bi naw na lool jëf ji kon yàlla yàgg si barke Cheikhul Khadim kon sëriñ bee bëgg am ay kàddu yu mu delloo ganam yu tedd yi sëriñ yu Mbacke nee na ñu ngi sant yàlla bu baax di sant Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul di ziar mbooloo mi fi teew ñëpp di leen sant bu baax si seen teewaay di leen gërëm ñaan képp ku fi teew yàlla sunu boroom faj sa ajo danoo bëgg ba dem ba toll si euh, ñaan. danoo bëgg bàll danoo bëgg bàyyi dem ba toll si ñaan. nu door a jottali kàddu yi mbooloo mi. waaye dañuy tënk ay kàddu rek. waaye dafa am kàddu yu ñuy tënk rek. ci mbooloo mi nga xam ne ñoo fi ci mbooloo mii nga xam ne ñoo fi teew. te suñu borom dogal seen teewaay. te suñu borom dogal seen teewaay. mu jaaree ko ci soxna Bijou Touré. mu ko si soxna Bijou Touré Jama. ñu ngi koy sant bu baax bii su Touré di la ziar di ziar ministre bu de euh, jiite délégation bi di sant bu baax ci sa teewaay ndax ñu ne ñun amuñu ku dul sëriñ bi ku nu jàppale ci sëriñ bi rek sëriñ Touba rek la ñu am sëriñ Touba rek la ñu am ku ñu jàpp ci sëriñ bi nu jàpp la. ndax sëriñ bi rek lan am kon boo leen teewee fii ak jamono nu mu xatee ngeen bàyyi seen yitte yépp ñëw teew ànd ak ñun bis bi yëkkati fi kàddu yu rafet yii monsieur le ministre yëkkati dana jaaru nu sant leen ci kanamu mbooloo mi ba ñëpp dégg ko waaye sëriñ Touba nag ku gis lu ñu koy defal ku gis lu koy defal nga gis lim lay defal. di nga gis lim lay defal. te li nga koy defal fii ak dakkul. te li koy defal fii ak dakkul. lay defal du dakk. lam lay defal du dakk. dégguñu li ma wax la sëriñ bi nee na xanaa déggu leen lu wax. sëñ Touba. sëñ Touba. gis li koy defal. ku gis li koy defal. di nga gis lim lay defal. te li koy defal fii ak te li koy defal fii ak dakkul. lam lay defal du dakk mukk kon bu ñuy defal sëñ Touba. liñ defal sëñ Touba. sëñ Touba gis na ko. yàlla sëñ Touba faj aajo yëpp. ñu ngi di sant bu baax. délégation bi sëriñ bi nee na ñu ngi leen di sant bu baax. yàlla sunu borom faj aajo yëpp. si saayir ak si baatin. barkum Cheikhul Khadim. jërëjëf. sëriñ bi nee na. foofu la yemal kàddu yi ba nu toll si ñaan. incha allah nu door a mottali kàddu yi waaye sëriñ bi nee na mi ngi sant ñëpp di ñaan li sëriñ Touba ñaanoon di ñaan li sëriñ Touba ne képp ku ma liggéeyal ne képp ku ma liggéeyal baa nga ziar ma maa ngi ñaan sama borom maa sunu borom mu defal la texe te jéggal la say bàkkaar te jéggal la say bàkkaar ba mu nekkee sarsaara it ba mu nekkee sarsaara it waxoon na ni ku ma fi képp ku ma fi fekk maa ngi ñaan sunu borom mu tàqale la ci àdduna ak ci àllaaxira kon képp ku fi teew yàlla na ko seexul xadim defal barke borom Touba. asalaamaaleykum wa taala leen loxo yi te fas si li ngeen bëgg amin amin Mbàkke amin Balla Issa amin balay sa raayoo leen yàlla lépp nangu barke Cheikhul Khadim